poste de santé bi ñuy ubbi tey mu bokk ci poste de santé yi nga xam ne tànneef lañu ci réew mi monsieur Augustin Tine ministre d'État commune de Ndiéyène Sirakh bi ma fiy ñëw 2009 ñetti poste de santé moo fi ne benn post de santé bi colon yi ñoo ko fi defoon ña nga ko defoon mbuloxteen waaye dafa yàqu ba IGP bu ñu fa affecté bala nga ab ñaari weer ñaan déplacement ñu rus fa yóbbu sax malaat nag rus ku ko gis ak poste de santé de Kaba nga xam ne magi Kaba ya ñoo amoon jom dajale seen dërëm ak ñaari dërëm tabax ko ak poste de santé de Ndiéyène Sirakh nga xam ne ñi ngi ko tabax ci ay soixante douze soixante quinze monsieur le ministre bi yàlla yi dogal 2009 may ñëw ci commune bi santé tumurante na lool ci commune bi ma ànd ak docteur Babacar Ndour ICP de Kaba ñu def ay démarches ba tabaxaat poste de santé bu bees à Kaba réalisation de 200 millions ma ànd ak partenaire commune bi muy plan maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm au passage ba ñu tabax poste de santé de Mboulokhteen tabax fa logement ICP tabax fa maternité tabax fa logement sage-femme auprès des cent soixante millions monsieur Augustin Mbewaan nekk dëkk bu mag tumuranke ci santé ma tabax fa case de santé Ngorgam Séréer nekk dëkk bu mag ñu isole woon ko defuñu fa dara ma tabax fa case de santé ñëw Ndengleer case de santé bi fi nekkoon mab yàqu kaña ya di fa foye ak jaar yi ma réhabilité ko defaraat ko karole ko peinture ko ba mu nekk po case de santé bu bees case de santé de Gouy Kuli nekkoon lu tumuranke ma yokk ko coloture ko case de santé de Njengom nekkoon luy bëgg a yàqu ma réhabilité ko coloture ko case de santé de Guy euh, Ngijaan Xali demoon ba yàqu ma yeesal ko clôturer ko case de santé de Thione Ndiaye ma équipé ko cas de santé bu jokkul njàlligi ma réhabilité ko karale ko defar ko ba mu bees case de santé de Nduuf ma réhabilité ko karale ko defar ko ba mu bees monsieur le ministre d'État nag mu des ñaari dëkk yu mag yi gën a mag nag ci commune bi nga xam ne ñàkk fee def poste de santé injustice la woon muy nduuf ak Ndingler vraiment Ndingler ak nduuf ñoo ëpp population ci commune Ndiéyène Sirah ba benn poste de santé amee rek deuxième poste de santé bi foofu la waroon a nekk waaye sama xel nekk ci ñoom rek ma bàyyi leen xel ba yàlla dogal nag président de la république jàppale ma conseil yi jàppale ma ma ñëw tabaxal leen poste de santé bii kon commune de Ndiéyène Sirakh bi ma fi ñëwee poste de santé yi ma fekkoon yépp éliminé naa leen ba mu des benn tey ay ancien poste de santé lañ leen di tuddee tabax naa poste de santé yu bees yépp muy Kaba Mbulaxteen et Ndouf benn poste de santé moo fi des muy njéen sarax plan daf nu ci jàppale woon ci diggante 2002 ak 2003 tabax ko te signalé nañ ma ne ma baaxul jël naa décision pour tabax njéen poste de santé bu bees. il faut nga yëngal ngi nelaw rek. njéen sarax 37 villages la ak 21 hameaux 37 yi yëpp. ñeenti village moo ci des fim nekk nii yu amul yu amul courant dugal nañ leen ci programme ñaar fukki amoo ak benn yi yëpp ñetti amoo moo ci des yu amul courant te dugal nañu leen ci programme njëyeen sarax mu ngi ci quatre-vingt-cinq pour ci taux d'électrification rurale ma ne nu président Macky Sall li nu waxante woon lépp nag def nag électrification bi daj na éducation dégg nga li ma la wax te ubbil nañu lycée ren la gone yi di am bac CM de Ndiène Sarax clôturé naa ko fii mu nekk nii fukki classe ak ñett ña nga fa nekkatuñu ci ay ancien poste de santé ab maire nag bu nekkee ci ab commune ba élection di jub mu am neuf candidats yu ko contre te kenn mënut wax na maire bi liggéeyul ci ab dëkk dëkk boo taxaw ne maire bi liggéeyul ñu ne la ku fi def lii ku fi def lii ku fi def lii loolu jàppale pouvoir la poste de santé bi nag poste de santé la boo xam ne fi mu ne def nañ ci cinquante trois millions mu des nag maternité ak logement di sage-femme may wax docteur bi doon wax léegi ne ko na wax médecin chef ne ko na xelam dal janvier 2002 jëm février dinañu tabax deux mille 2022 jëm février dinañu tabax bu soobee yàlla maternité bi parce que am nañu ko te nar nañu ko te sóobu nañu ci lancé nañu appel d'offre bi ba pare